kenn ku ne gis nga jàngoro ji tàbbi ci bi daj fépp mu nekk loo xam ne na ñëpp man mi def Paris 22 ans gis ñoom capacité bi am ci santé bu ñu ba ñoom ñu paniqué Chine ma fay dem gis ñoom ñu jaaxle kon boobu xajul Afrique. ba ñu ànd xeex jàngoro bi ndax jàppale ko interdit pour le moment avec Marseille. lu ci commerçant yi ndax ñoom xamuñu du ma des kenn ku ci nekk ci ngay liggéey ci yor sa njaboot te loo xam ne depuis 2004 yéen ko tàmbali ñu nekk 3000 personnes di liggéey ak 17 communes ñu organiser leen ba kenn ku nekk am xëy li ngay jaay bu ngoonee ci ngay yor sa njaboot ci ngay defay say fayal say doom yuy jàng dana metti ñu xëy xëy arrêté ko ak yeneen engagement yi nga xam ne mu ngi woon ci seen biir.

kooku bu ñu toogee liggéey ñu la fa nekk ci chiffre bu nu mën a xayma bëri na c'est une perte mais perte boobu ndogalu yàlla la ni ma naqaree man mi xam na maa leen jiite nu ko naqaree foofu noonu la mel ci président de la xam naa ko nan ñaan yàlla ñu combattre xeex bi euh, maladie bi mu jeex ñu jéem a xool lan la état mën a def ndax gis naa ne am na yéene jàppale entreprise yi am na yéene jàppale société privée yi am na jappale aussi commerce bi te yàlla dogal na fexe nañ ba formaliser l'informel depuis 2004 jusqu'à présent ñi di liggéey ñu xam leen identifier leen kenn ku nekk bo xeye dimanche am nga fay xey altine kon ñoñu ay commerçants yu mag lañ. bu ñu defee xayma bi sécurité ak MADS rek salaire yi ëpp na presque 150 personnes montant bi mën na romb presque 40 50 millions. bu dee commerçant yi seen xayma ëpp na parce que boo xoolee fii yàlla dafa def danu organiser commerçant yi bëri na ñoo xam ne ni dañuy nekk Sandaga wala ci yeneen marché di indi ay conteneur mais dañuy ñëw ci marché luuma hebdomadaire euh, euh, jox leen ko ñoo koy écoulé te tey ji loolu day dakk ko chiffre d'affaires kenn mun ko xayma bëri na ñoo xam ne ni tey ñoo ngi Colobane bu nuy ñuy importer marchandise duñ ko jox ñenn lu dul waa luuma yi ñoo koy écoulé bëri ñoo xam ne tey jii dañ créer ay atelier seen biir kër jox ay tee ñu leen di ñawal ñu ñëw di ko exposé foofu te yëpp dañ koy taxaw kon li ci nekk si énorme mais chiffre boo xam ne daal nañ jàpp ni bëri na bëri goo xam ne daar daan ni mënuñu ko calculer mais incha allah bi on est ñu estimer jox dañ ne nan kat suspendre jusqu'à nouvel maanaam tant jàngoro bi mi ngi fi kon xel xalaatul du ubbi ndax tamit sunu intérêt intérêt réew mi intérêt Afrique mooy jàngoro bi jóg fi kon il faut ñu nangu métti yi muñ ànd ak autorité yi ba jàngoro bi mën fi jóg ñu mën a tàmbaliwaat activité diggante bi nag dana am ay manque à gagner yu bëri yooyu nag la ñuy jooytu état mu jàppale ñu ci jàppale ci ñi nga xam ne maa leen jabote ci amuñu lu dul man